Anyways.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 denc ko ci kaso bi lu ci ñetti at doon ko toppee li tubaab di wax naan tentative d'homicide volontaire maanaam doon jéem a faat bakkan ëpp low mbir mi nag nee ñu nii la demee maire bi nee na bis bi ñaawteef bi di am tailleur bi dafa débarqué ci këram ngir ñoom ñaar ñu réglé seen natt bi nga xam ne ñaari weer mu ngi nii mu am retard natt boobu nag natt la boo xam ne weer wu nekk ñaar fukki junni la ku nekk di natt cagnotte bi toll ci six millions weer wu nekk nag dañuy tirage ñaari nit génn bu ko defee ñu seddale leen ko maire bi nag nee bi mu calculer retard yi ne tailleur na ko fay xaalis bi ci la tailleur dal di génnee paaka dal di ko koy jamat ci loxo maire bi ne yuux na ngir alerter dëkkandoo yi waaye laata wàllu woowu di am fekk na tailleur dugg ci biir néegam daldi ubbiwaat armoire ba ne fa tuŋaañ lu toll ci deux cent mille bi loolu amee na maire bi nee ci la utee certificat médical daldi porte plainte tailleur ba mujj koo teg loxo ci kanamu tribunalu ndakaaru bi maire bi doon waxee loolu nag fa la daldi taxaw weddi tuuma yooyu maire bi teg ci kawam ba mu wecc tailleur bi ne dëgg dëgg li am maire maire bi waxu ko li xew dëgg-dëgg nag mooy maire bi daf ko noppata oh, law mais maire bi bi mu demee ba mënatul téye cofeelam ci la ko ko dal di wax ngir ñoom ñaar ñu dund ko ci secret tayar ne bi ko maire bi waxee loolu bis boobu dafa mel ni ku ñu yenn àdduna ndax moom dafa mës a jàppee maire bi comme yaayam ay waay am na de léegi ci kanamu tribunal téeray wax de téer ne sax benn bis maire bi mus na ko proposer relation sexuelle astaghfirullah waaye mu lankati ba tëdd ci naaj bi ndax moom li mu waxoon rek ne maire bi yaayam la ko jàppee mais bi loolu amee nag ci la ko maire bi dal di menacer dal di koy génneel paaka bëggoon ko jëmale ci kawam naka noonu ne ci la récupérer paaka bi dal di ko retourner contre maire bi ëpp naa def nag procureur nag bi mu dégloo ñaari wax yi dal di càmbar xool parti la ca tee nee dëgg-dëgg nag teer bi bu bëggoon rey maire bi ngir sàcc xaalisam maire bi du rëcc ma ne mat naa xool de fi mu ne mbir mi ñu ngi xool fu wan di mu jekki gëtëm moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax waa ji nag ab expert comptable la waaye li ko gambien bi def jéggi na dayo de expert comptable boobu nee ñu dafa xamante ak jigéenu gambien bi te ñoom ñaar seen xaman xamante mu ngi jaar ci benn copain wu expert comptable bi naka noonu bi gambien bi ne cëpp ndakaaru ngir faju ñoom ñaar ci lañu ñu gisante waxtaan ba mbëggeel dal di dox seen diggante ñuy envoyante ay vidéo ay vidéo yoo xam ne maara dee taali bët bu ca tege tuuru ay waay bàyyi leen envoyé yi Gambien bi nag bi mu jotee ci vidéo waa ji ci la ko commencé santage dëkkee ko santage ba expert comptable bi mujjee sonn tal di dem ca yoon ba gàmbiyan bi ñu ngi ko mujjee tegee loxo ca kaarang fekk ma nga doon bëgg a dellu Gambi moo tax man leen ana génn ak jigéen di vidéo sa bopp ne dung di ko envoyé man ñàkk jom gi ci réew mi jaaxal na ma mu dooroon seen xibaaru buzz dag daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz